وجد قصائدي خلوب الحملات لراسي وهي كسر للكملاء هاجت قصائدي خلوب الحملات لراسي وهي كسر للكملاء إذا كتبت فزع عرش الملك وفزع بتسبيح هدي إلى الكرسي هبات ذي العرش وذي الكرسي حتى حمي في القدس إذا بلغت

ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom ci gàddaay gi dëppook 2013 ci la sëriñ satu Mbàkke ibnu Cheikh Sohaybu bu Mbàkke njëkk woote bis bu màgg bi jagleel ko xasidaay sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul yi booba ak léegi toll ci juróomi at di bis boo xamante ni sabab bi leen rekk la dundal xasida yi ci durus ak njàngum yëkkati ci diggante kuréel ak rajas gannaaw ban jiitalee jàng alxuraanul karim ba ñu ko dooree ak léegi saa su bis bi dëkkatee yi tey mbooleem murit yi dund xasida mooy dundal ko kem seen kattan gannaaw màggalug 18 safar ak gàmmo gi benn bés gënt kowe bis bi waa axlu xasida yi nga xam ne nii ñoom rek a koy dundal loolu waral la nag boo agsee fii ci tubaa jaalibatul maraaxib liggéey bi lépp a jaar yoon ngir wone seen xër ci liggéeyal Serigne Touba xaalim rasul rawatina ci xasida yi ay junne junne yi nit bàyyeekoo nañ ci réew mi ak bitim réew ngir teewe si màggalu xasida yi mbooloo yi teew si nag ñu ngi fasantikoo ci ay daara ak ay daayira ba ci ay association ku nekk ñëw rek ngir fësal sa yéene ci bis bu tedd bile wàllum kaaraange mat na sëkk waaye takk der yi taxaw nañ ko ànd ak taalibe yi fii ci Touba Jaalibatul Maraxib lu nekk ak fam war a nekk oto yi ak moto yi sax fàggul nañ leen ay bërëb yoo xamante ni fa lañ leen féetalee ngir mën yaatal dal yi boo tàbbisee ci biir kër gi di këru xasida yi fo xol sa bët mbégte rek ngay gis bu ñi dee yàkkamtee gis sëriñ bi ziar ko saafante ak mom ñeneen ñi ngi tim seen jukkay alquran wala qasayit ñi yor seeni kurus ñeneen ñi mom ñoga nga wo xewal yi ci séddale ak taxawu geneen wàll gi ñi mom set ak setal rek mo leen ñor ci liggéey bi mbooleem murit yi nga xam ne nii ñu ngi tàbbisi ci bis bi di liggéeyal Serigne tubaa fasantikoo ci ay bànqaas benn yéene ak benn yëg-yëg rek lañ am liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasuul ci bis bi ba làq ngërëmam bu ñu desee ba tey di leen xebaar li nga xam ne ni doon na am ci bis bu tedd bi ñu gën koo xam ci màggalu xasida yi fii ci Touba jaalibatul maraxib duñ fàtte benn yoon tagg jàmbaar yi nga xam ne nii fu liggéey bi àgg ci àdduna bi ñoom rekk la lu ëpp ñaar fukki kër yi tasum xibaar lëkkalikoo ci ay télévision rajo wala site internet teew si nañ ngir mën a tasaare liggéey bi ca geneen wet ga yaa ngi seen ñi nga xam ne nii ñooy saytu wàllum sonorisation bi di màndaxe wax ji ba mu mën a sori lool nii la bis bi yandoo ba ginnaaw tàkkusaan ci la kilifa yi teew ci njiitu sëñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadul Bachir ak yeneen kilifa yoo xam ne nii ñëw nañ fii lu njiitu bés bi ngir nag ñaanal taalibe yi soññu leen duñ tàyyi mukk itam biral jafe-jafe yi nga xam ne nii way taskatu xabaar yi léeg-léeg danañ ko jànkonteel ci bis bi ñi nga xam ne nii leen rek moo leen fa indi muy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ni ko ñeneen ñi defee di ko feeñal ci seenub liggéey ci bis bi noonu la ko way taskatu xibaar yi fay ñëw ak caméraman yi am yéene ji liggéeyal sëriñ bi tasaare ko ci réew mi waaye saa suñ ñëwee ñi nga xam ne nii ñooy saytu wàllum presse bi gannaaw buñ ñu dalalee teg ñu ci aw yoon buñ paree kat dañuy am jafe-jafe gis leen bay dégg seen jaajëf te ñun ñi nga xam ne nii dañoo ñëw ngir liggéeyal sëriñ bi ni ko ñeneen ñi defee dañuy sàkku saa suñ paree rek dem ci sëriñ bi mu ñaanal ñu suñu liggéey yokk ban am ci ngërëmal sëriñ Touba. beneen jafe bi nga xam ne ni danañ ko fa dund mooy wàllum cérémonie bi saa suñ sa àggee caméraman yi dinañ am ay jafe-jafe lool ngir mën a am ay image yu baax li ko waral nag mooy xat ak benn organisation boo xamante ni nii xaw na doy waar lool ba mën a gàllankoor suñu liggéey lu bari lii nag buñ ko waxee dan rek lañ ci jublu muy nekk ay taalibey Serigne Touba yoo xam ne nii ñeneen ñi nga xam ne nii ci seenub liggéey ci lañ mën a fësale seen yéene ci bis bi noonu lañ amee yéene jooju moo tax lépp loo xam ne nii gis nañ ne war nañoo gàllankoor ci liggéey bi dañ koy wax di ci jégalu bu baax a baax a baax kon lii mooy li nga xam ne ni Mouride TV jële woon na ko ci màggalu xasida yi naka gaaw fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre atum 2017 ca Touba Jaalibatul Maraaxib waa ahlu xasida gépp ànd ko ak Serigne Amsatu Mbàkke di ñaan daje ci ak ngërëmal Serigne Touba Cheikhul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu